je serai pris je suis en live là. On changera, changera après. Bah, moi alors. Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum les patriotes. Salam alaikum les patriotes comment allez-vous naka ngeen les patriotes imagine que amul temps patriotes, amul xol mais patriote patriotes patriote du titre. patriotes du Patriotes du douter patriote de hésitation comme nag patriote, patriotes vous êtes une seconde famille pour moi. donc je veux voir les patriotes je veux vous voir je veux vous sentir et je veux vous entendre Ben xol neexul ndeysaan élément Cheikh Ben benn xol dal te yalla a le bëggul tek la teg tek la ay coono waaw kon nag faut tenir le coup Alassane sansou les patriotes tenez le coup pour tenir le coup ñu waxtaan waxtaan ñu waxtaan résistance rek résistance rek je vous attends vous êtes où vous êtes où On est ensemble. On était ensemble hier, avant-hier, aujourd'hui. On doit être ensemble demain. un bon problème. Donc, pas la fleur. Les femmes vont sortir. le Bravo, bravo. C'est ça que je veux entendre wallaay si mu ngom xol yépp a metti waaye loo xam ci loo xam ci noonu rek la jalousie c'est fort ça pousse les hommes à poser des actes des fois danga naan sax est-ce que lii nit mën na mais le combat continue j'attends je crois que vous êtes tous là Ibrahim Emar mangi fi fii ak sosak, ay sos ak ay wax yu ñaaw dara du tax ñu dara Rosemary ma chérie faut pas pleurer on est ensemble Lanak, patriot patriote du joy sut ton ñu toll ah, d'accord toi je peux te bloquer tu montres ton vrai visage

sama xol bi yëpp ak sama xalaat bi yëpp tay ci yéen la nekkoon mané rek bala may jallale suba il faut ma wax ak yeen il faut ma wax ak yeen xamna ne sox wu len ko parce que yeen ay jambar ngeen té nak li ngeen bëgg ci sen projet bi ba tax tay président Macky Sall jël décret bo xamni depuis temps Masmoud Diak Dia PA yi la xaw ma depuis boobu lañu ñu gëj a wax ay waxu dissolution de parti kenn mësu koo dégg lii kenn mësu koo gis ci àdduna ci histoire Afrique lii loolu ça montre que yéen ki ngeen fal def ko seen candidat def ko seen président def ko seen njiit mais il fait peur il fait peur sant leen yàlla dalal leen seen xel

yóbbante sant gërëm dénk boppam sénégalais dénkaat boppam yàlla sas bi rëy na de sas bi rëy na de dénkaat boppam askanu Sénégal dénkaat bopp boppam yàlla ku gëm yàlla nit ku diiñ ñu jóge foofu ne dañuy xool naka lañuy ñuy réagiré balaa ñuy waxtaan décret ba wadd décret président Macky Sall waaye président Macky du yàlla décret bi muy jël loxoo koy signé te kenn moom moo yor décret bi nga xamante ne du dañ moo yàlla sunu boroom décret boobu yàlla képp moo koy signé yàlla mooy wax kan mooy doon njiit kan mooy falu ak kan moo dul falu kooku lu waay jël ci décret yéen warul leen tiital waru len tital ben yoon bude dee ngeen ki borom beut bu reey bi war ngeen xam bude dee jël na décret borom beut bu reey bi jëloon na décret ne ci jëwu Ousmane Sonko bi kassa da ci am ne woon na fu way meuna jaar Ousmane Sonko dina dugg ci kaso bi kon wolu len wolu len borom beut bu reey bi xam ne bu fekkentene ne na ci jëb Ousmane Sonko day dugg pale amul lu ko koy tere amul lu ko koy tere Abdoulaye Wade tëj nañ ko fi ay yoonu yoon terewu ko nekk président de la république waaw kon nag metti na lool metti na lool parce que li metti mooy nga gis président Macky Sall muy déroulé di def li ko neex boobu ba léegi opposant politique yépp mu tëj leen kaso ku mu dugal la kaso kii boobu ba léegi mu mooy ci ne foog mu dugg ci kaso bi ñu jaar fu ne xale yi taxaw fippu xeex économie bi sëgg mais mu ne foog mu dugg kaso rek jàpp ci rek waaye dafa fàtte boroom décret bu mag bi boroom décret bi nga xamante ne minute lay effacé neen dénk suñu bopp boroom décret bi te gën a taxaw décret bi nag nee na dafa dissoudre parti Pastef waaye yéen parti Pastef ku leen mën a dissoudre yéen yéen nga xam ne sax ngeen ci xol yi ba pare man mi bokkul ci yéen sax sax ngeen ci sama xol ndax am na ci ñoo xamante ne tata lañ may woowee am na si ñoo xamante ne bëgg nañ ma bëgg goo xamante ne damay dégganteeg ñoom di jokkanteeg ñoom kan moo leen mën a dissoudre yéen yéen yéen c'est fini c'est fini am ngeen projet am ngeen bëgg-bëgg taxaw ngeen ci seen ginnaaw leader metti na nag metti na nag parce que musu fee am waaye lu musta am lu musta am danga koy jàngatee beneen boor bi jàngat leen ko mais quand même mais yéen mais yéen yéen a aay yéen a fort yéen taxaw menacer tout un système menacer toute une république ba amuñu lu ñuy wax lu dul amuñu lu ñuy wax lu dul dañ leen di dissoudre waaye yow bàyyil kooku nee na maa ciy topp comme yéen bàyyiwu leen kenn yéen foog ngeen ni yàlla yéen daal jàpp ngeen ni kaso bi yéene ko moom <laughs> waaw comme Macky Sall li bëgg lay def Antoine Diome di ko ci jàppale ngeen naay ñun ngeen di menacé at bi ñuy judd ñun ay tappet judduwuñu ci mënul leen di dissoudre Pastef ñu dellu soit ci wax bi bàyyi leen leen ñuy wax un système bi un système menacé leen Pastef les patriotes ce petit parti politique là né en 2014 un petit parti qui quand il est né tout le monde disait oh, c'est un parti de de de internet parti réseaux sociaux parti réseaux sociaux Il y am ay cellules founé sur toute l'étendue du du territoire ku des di qui di adhéré ngeen di jay et bracelet lu ngeen yëkkati mu Barkel. ngeen dem ba ay nit dañuy feebar sax di leen woo nan leen wàllu leen ñu ngeen sax ci xolu sénégalais yi ñu bëgg dem jëli ay wax comme li ma leen wax wax yu ñàkk wax yu ñaaw ay nit ñu extrémiste ay nit ñu appelé au meurtre ñu jël ñooñu daal di leen koy bëgg ko kole mais yéen mënul leen yéen ëpp ngeen loolu ëpp ngeen loolu ndax yéen ci kër yi ngeen ne ne ci xol yi Ousmane Sonko kan moo ko mën a effacé koo xam ne am na ay nit ñu jur seen doom sukk jur leen tuddee ko ko kooku kan moo ko mën a ci effacer ci histoire politique du Sénégal existé wul existé wul loolu dalal leen seen xel waaw ragal nag yapp yàlla la te lu nar a baax du yomb lu nar a baax du yomb de waaw jafe na nag metti na de jafe na metti na waaye Sénégal moo ëpp Pastef Parce Pastef parti la rek yeen Sénégal ngeen soxla dépassé ngeen Sénégal yeen Afrique ngeen wut panafricain ñaata africain tay ñu yëkëti un Sénégal tek ko ci kaw Ousmane Sonko di soutenir ci combat bi muy mené di ci soutenir di ci jappalé Ousmane Sonko a dépassé le Sénégal on se dit qu'on va l'arrêter être que casson lay jaarale nañ ko fi mag ci ci góor ñu mag ñi jaa jaaroon jaarale nañ ko ci fi dirigeant yu mag yi jaaroon fi ñoom Mamadou Dia jaar wax ji kay mooy fexe ba taxaw ba soor bi ñooñu am moom du ko am ba soor bi dal Cheikh Anta du ko dal loolooy wax ji bañ a fàtte bañ a démobiliser wu bañ a démoraliser wu gëm yàlla gëm Ousmane ko jiital ko dem loolu kese mooy wax ci waaye jaaral nañ ko foo xamante ne Nelson Mandela jaaroon na fa Abdoulaye Wade jaaroon na fa jaaral nañ ko ci yoon bi nga xamante ne ñoom seen Cheikh ak Pape Malick góor ñu baax ñëpp dugal nañ fa bëggee ne ndax xeex Sénégal Ousmane Sonko barki démb dong la ñëw ci espace politique bi damuy commencé politique man xamuma ko boobu maa ngi soutenir Karim Wade soutenir nañ ci xalifa sàll waaye yalla mo jël Ousmane Sonko def ko ci xolu doomu aadama yi lu waaye nit man lu nit man ci lolu ay waaye lu nit man ci lolu dul nangu mbagn gi ma gis en bi ma dégg ci baat ci nit ni di am satisfaction ndax tek nañ Ousmane Sonko Ousmane Sonko dépassé na jëmm c'est devenu un esprit c'est devenu un esprit dem na ba sax ci bop nit dem na ba ñi ko bëggul woon démb doon xeex ak moom doon ko wax ak yu ñaaw ñëw nañu ba jubook moom ànd ak moom tey ñaata baat ñoo jóg condamné li ko daal ñoo xam ni laale wu ñoom ñoom ak moom bant démb kooku mënatu leen ci moom dara nangu rek nangu rekk ngeen mën ci moom ñun ñii sax xamu leen li xew ndax ñun ñii ngeen jël foog ni jéem ñoo yàq wala jéem ñoo euh, sosal dina tax ñu bàyyi ko di ngeen ñu gën a buux bu max ci moom parce que ñun ay góor lañ bu ñu àndoon ak moom benn démb nañ ànd ak moom tey fukk ko yoon waa Pastef yi patriotes yi message bi yéen ko moom bu leen raf bu leen gëmm bu leen dute te aussi li ma leen di xamal mooy bu leen toog bay waxtaanee waxi plan B ak plan C ak plan Z Pastef bu leen jéem loolu képp ku nekk patriote ànd ak Ousmane Sonko bul am doute bul xalaat bul xalaat bul toog ba naan non kon Ousmane Sonko bu demulee kan moo mun a dem bul dugg ci loolu mooy seen plan A seen plan B di seen plan Z jàpp leen foofu bu leen xalaat bu leen xalaat kañ lay doon jox leen ko boroom bët bi jàpp leen rek te wo baye jàpp rek te wo baye sen force mo len di déranger réseaux sociaux yi nga bu ngeen waxee ku amone loy wax da ngay taxaw couper internet bi le siwaat len remobilisez-vous remobilisez-vous Ousmane Sonko point te damay défier patriote indi yónnee len ma bracelet Pastef na ngeen fexé ba suba ci suba na fexé ba ci suba ci suba na am sama brasserie Pastef diko tak fi suba ngone goudé ak bëccëg wa dama len di jappalé ci xeex bi bañu xamni man ak yenen gor yo xamni ne mosuñoo ak yéen dinañ taxaw jappalé len ci xeex bi parce que nak vous êtes une bonne nouvelle pour la démocratie waxoon naa ko demb wax ko barki demb li ngeen indi ci xeexu démocratie bi bu leen falul du ay dissolution lañ len wara défal da ngeen di ñëw fekk parti politique nit ñi di adhéré ci ginnaaw ay nit di leen topp ngir am lu ñu am di leen topp ngir leneen yéen ngeen ñëw di cotiser def seen xaalis def seen alal def seen doole gëm ki ngeen topp waaw gisagu leen dara Fatoumata Diallo damay tëddi nelaw damay tëddi nelaw Ousmane Sonko mënu leen ko yàq ay nit ñu baax doo nga ko bëgg ay nit ñu la bi dong ko bëgg pastef gën leen am pastef ay parti courel né nañ dañ leen dissoudre est-ce que yéen mën nañ leen dissoudre dañ leen mëna mën réew mi dañ leen mëna exiler nangu seen carte d'identité ci réew mi ngeen bokk ken mënul ci yeen dara ci Sénégal gi ngeen bokk te vous allez compter vous comptez vous êtes un nombre et vous allez compter kenn mënatul def l'avenir de ce pays sans vous Ken mënu tenez bon je tenais du fond de mon cœur du fond de mon cœur à vous dire ça te ci réseaux sociaux yi nga xam sem mooy seen ba tax président Macky Sall nërmee leen économie bi ndax coupé réseau yi fii laa di fekk wax leen ko muy guddi muy bëccëg xam leen du weetu leen woon te dootu dootu les nuits, on sera avec vous c'est pas le moment bu leen wutal seen bopp benn ennemi bu leen mer bu leen ñaxtu bu leen xas sénégalais yi bu leen jàpp ni génnuñu les gens sont choqués askan wi am na lu ko metti sénégalais yip tey reeruñu ak a bare ñu reerul ñu bëri ñoo xam ne seen xol yi dafa metti parce que mosuñu xalaat ni bañ nit dina egg ba mësuñu ko xalaat pour nous, non peut-être ay contrôle judiciaire wala taxu dem ba tëj Ousmane Sonko mais dissoudre parti politique bu ay millions de sénégalais nek ay élus locaux ay maires ay conseils départementaux ay députés kan moko ko Je parle pour ça, Souleymane. C'est pour vous rassurer, pour vous redonner du courage. Ce message, c'est pour ça ku ci am ñàkk courage rek duggal ci live bi nga déglu ko nga xamni yeen kenn xolal yeen ñi leen bañ def leen leen li gëna metti vous existez mais faites-vous voir avec votre optimisme ak seen gëm-gëm ak seen ay cœur gën leen taxaw photo Ousmane Sonko yi na gëna tar publication yi na gëna tar nga gën a tar ci sociaux yi ndaxte kuy xeex ak ku bañ dang koy fat li ñuy bañ bañ koo gis bañ koo dégg wan leen leen ko ba ñu overdose kay merci Eva jël silma ko jox ma ko ma takk dinañ takk dinañ leen jaayle ay bracelet dinañ takk dinañ leen jaayle ba mu neex ba mu neex ndaxte nag démb yéen Pastef yéen patriote yi ne taxaw fii boot ñu rogganti ñu tey dinañ leen boot rogganti leen ku ñu tudd wala ku ñu wax lu naqari xamuñu leen xamu leen ñu may yéenay taxaw defante ak ñoom xas leen wàcce leen tata noppil bul tontu di ñu tontul kon tey bu leen dara metti tey dinañ leen boot roganti leen fopp leen ba du ngeen laal suuf ngeen xam ni Ousmane Sonko fee mu ne

na ñëpp takk bracelet Pastef yi na ko ñëpp takk yónnee leen ma sama bos tamay takk sama bracelet bu leen dara metti fi may tëjee nag mooy di encourager di féliciter soxna yi Ousmane Sonko yee soxna Khady ak soxna Anna jigéen ñu am jom

Sénégal adduna bi yëpp lay waxal Ousmane Sonko dañ ko teg dafa metti deful lu dul bëgg réewam opposé jàpp nañu ko yóbbu ko garde à vue tey jàpp nañ ko yóbbu ko na ñu bàyyi doomam yi bàyyi jabaram yi bàyyi waa këram nañ leen may jàmm gouverneur dem na ba génne arrêté boo xamante ne dañuy saisir lépp lu waa Pastef moom jabaram de ken xameewu ko bokk pastef ay jabaram ken xamewu len bokku pastef ay domam ken xamu len bokku pastef kon nak keureum defu len fa dara parti permanence sax amu len droit dem fa parce que arrêté bobu avocat yi dinañ ko attaquer devant la cour suprême ndax président Macky Sall momul dëkk bi ah way way way waay dëkk bi momul dëkk bi de dalal leen seen xel ñaanal leen ñu gudd fan rek waaye gis nga fii ñu ngi gudd fan président Macky Sall ñun duñ ko saaga parce que ñun kenn yarewuñu saaga ñun duñ ko wax wax bu wu waaye dinañ ko opposé wu ba minute bu mu fiy jóge te bu yaakaaree ni tëj pas Ousmane Sonko rajaxe Pastef moom mooy tax mu am boulevard jàll wallaay boobu dafa fàtte boroom décret bu mag bi dafa fàtte borom décret bu mag bi Oui, Koli, Ousmane doit sortir de prison. Sa place n'est pas là-bas. Les gens vont se battre pour qu'il sorte de prison. D'autres, moins que lui, gagnent une ci prison bi kon que day une prison bi ko dara ñun ko yalla. itam dañ araftu dara ko bu yeneen prisonniers politiques bi ngeen len jappé da ngeen len may afiyé may len jam ñu am ay droit de visite nek en sécurité di entraîner wu nek ci jam né ngeen ko may le même traitement équivalent parce que nak ñun fi lañu lepp lépp fekk deux fois par semaine ñu koy dem di visiter Karim Wade sunu bulletin de visite yaangi fi kat bi ngeen jappé Khalifa Sall dafa doon am ay bulletin de visite ñu koy seeti Ousmane Sonko séquestré ngén ko 55 jours téré ko visite tay jël ngén ko yobbu ko Sébikotane da ngén koy may mu am ay droit de visite da ngén koy may mu gis ay mbokam gis ay xaritam yéna a wax waxi terrorisme lool yépp li ngén bëgg moy tëj ko barricade ko ba kenn du egsi ci mom waye dinañ xam ndax yeen yéna mom dëkk bi dinañ xam ndax yeen lu ngén tek rek sénégalais rek sénégalais la nak réew mo gis nit ku ne li nga mérito té nga nangu ñu tek la rek loolu la la yàlla di seetaane waaye Sénégal nag ay góor ak ay garmi ñu ngi fi te gëm naa ni li ngeen bëgg du ngeen ko am wallaay Saliha musuma bokk Pastef musuma bokk Pastef waaye ak maa bëgg waa Pastef ndax seen jom ndax seen taxawaay Ousmane Sonko nag li ma boole ak moom du politique xëy na tey dina leen leer politique boolewul boolewuma ak mom c'est mon frère sama frère la sama xarit la ma xam ko yagoul mais ma xam ci mom jom xam ci mom bëgg Sénégal te il mérite notre soutien il ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre là mérité wu ko lu métti li ñu ko teg mérité wu ko depuis biñ ko radier ba légui limuy dund fi ci espace politique bi mérité wu ko waxu fi lu fi Macky Sall waxul waxu fi lu fi Macky Sall waxul waxu fi lu fi Macky Sall waxul ndax Macky Sall nee na day déloger Ablaye Wade loolu taxul Ablaye Wade tëj ko traité ko de terroriste waaye moom moom lañ ko teg xëy na moom la yàlla namm mu war a changer Sénégal xëy na looloo tax yéen bi diis lii day jeex day jeex incha allah day jeex bu leen mer bu leen xas bu leen wax lenn lu ñu ñibbi jàppee ni sénégalais yi dañoo seetaan Ousmane Sonko musu ko ko musul am musuñu ko seetaan dañu am choc dañu am lu leen metti sénégalais tey dañoo mel ni ñu ne ci dëj dañoo mel ni ñu nekk ci dëj les gens sont choqués ah du juuf bu ñu bàyyee Macky sàll déroulé lii de boo yeboo ñun ñëpp ñu xam ni Macky sàll dëkk bu ko neexee mu defaat ko monarchie 2024 lu ko neex moo fi am bu ñu ko bàyyee mu déroulé nii parti bu mel ne Pastef tiital la ba nga ne danga koy dissoudre yemoo ci tëj Ousmane Sonko te fan nga mës a gis ci àdduna nga jàpp nit ki àtteeguloo ko jugement amagul kenn xamagul moo def moo deful nga nga ne da ngay tas partem yow barki démb nga juum. top ko djumo sax mais ya ko tay mais barki demb ngeen ko top ci erreur ci viol ba ci panda ba ngeen ne corruption de jeunesse mu war a wëlbatiku top len ndax li ngeen koy topé tay yépp ci ay déclaration yo xamantene dafa deuguer li ngeen ko tek motax mu def ko déclaration yoy man mi amna yo yoo xam ne politique mais amna wax yo xam musuma ko fi wax

góor la yalla dina tu Ousmane Sonko en prison c'est dur metti na di ko mais Ousmane Sonko est un homme noble bi nga xam dafa dem fekk ji plus de 700 personnes yi nga xamantene ne nek en prison xéxal ko je suis sûr que lu mu metti metti mom dina ko dékku dina ko dékku parce que tay 700 personnes yoy nek foofu ci bir xamnañ ni li len fa dugal de rëccuwuñ ko.

Sénégal ku am kàddu na wax autorité yi président mak Sall ak régime nañu may jàmm famille Ousmane Sonko nañu may jàmm ay soxnaam may jàmm ay doomam nañ leen bàyyi ñu tranquille bu ñu dem ci seen kër di perquisitionner ay guddi bu ñu fa dem di perquisitionner ay bëccëg bu ñu amee lu ñu leen di wax nañ ko jaarale ci yoon kañ jàppoon te muy politique jàpp nañ ko yóbbu ñoom politique ñu politique ñu nañ leen may seen jàmm nañ leen laisser tranquille nañ leen laisser tranquille yéen ñi ci des nag te nekk fi gëm man de gëm naa ni deux mille vingt quatre incha allah rabbi li ñu bëgg dinañ ko am gëm naa ni bu ko ñëpp gëmee rek dara changé wul dara changé wul Macky Sall ragal Ousmane Sonko képp moo tax mu egg moom fi mu egg moom nii waaye nag. ba tey war ngeen xam ni Macky Sall yeneen parti yi fi nekk ragalu ci kenn ragalu ci kenn ci parti yu bare jàpp na leen tëj ci kaso bi tëj ci kaso bi ci kaso bi seen cadre yëpp mu tëj leen te waxu façon déclaration bu dëgër bu ne def nañ ko fi waaye Pastef mu dem ba ne dama koy dissoudre ba pare naan ay dañuy def ay appel à l'insurrection appel au terrorisme appel da xamala la ana terroriste yi dañ ko woon ñu gis yow dëkk bo xamantene avocat dugg na fi ba génn étranger yëgoo ko ngay waxoo ko terroriste yow buñ la waxee waneel terroriste yow looy wax yow buñ la nee ana terroriste looy wax léegi nag ngeen ne ñun ngeen di menacer parce que gis ngeen ne xëy na ñu bare dañoo dañoo am lu leen metti ba dañoo noppi waxaguñu ah comme Maimouna Bousso mu ngi wax ngeen ne da ngeen di menacer yéen bàkk ngeen bàkk ngeen yéen de da ngeen di nekk di gën a ràbb suñu diggante ak Ousmane Sonko xamu leen loolu nii ngeen di doxalee nii da ngeen di tax yéen ñu gën ko jàpp gën ko téye parce que ñun dañu bëgg défi Ousmane Sonko nag ku ne bëgg nga ko nit ku baax ku ne tey ñaanal nga ko fasaaleel nga ko gudd fan rek lañ koy ñaanal ak weer waaye li yàlla namm ci moom mënu leen ci dara j'aurais bien voulu jël kenn ci yéen pour dégler, j'aurais bien voulu mais je sais que même su ngeen mënul dugg seen xol ak seen xalaat ñu ngi bien sûr bien sûr une machine judiciaire qui a toujours été utilisée pour écraser les adversaires politiques wallaay usmaan def naa li ma yow war waaye des na ba tey laa tey laay gëjat gën a takku teem tey jii lay gën a takku bu leen déglu ñii di di di mokke seen xol a jeex yow nit ki nga koy bañ ay nit di ko gën a bëgg nga di ko wutal ay wax yu ñaaw muy gën a bare ay soppe nga koy gasal ay ndëq sërëx nit ñi di ko gën a tuddee ay doom nit ñi di ko gën a bëgg nit ñi di ko gën a sopp ñi àndut ak moom ñi ko bañoon démb sax ku jàkkaarloog moom jubóog moom kooku xam nga ni am nga lu la metti loolu kese doy na naqar yéen Ousmane Sonko képp doy na leen naqar yéen boroom xool yi bon yi yéen ñi iñaan Ousmane Sonko jëmmam kese doy na leen naqar doy na leen punition leneen leneen lu ko ci nit yokk sax ab yàqu wax la waaw moo tax ma ne tenez bon Euh, oui comment il va faire da nga exprimer waa acca nu def la Je ne la vais pas def bon c'est facile à dire comme ça Nous, sommes on a encaissé le coup toute la journée on a eu du mal Je dina baax de <laughs> dina baax de sénégalais moo mel noonu askan wi gaaw ñëw jóg bu ñu jànnaxee dañuy toog mais dina baax de dina baax de dina baax gëm leen rek dina baax dina baax bu leen démoraliser wu bu leen démotiver wu bu ngeen nekk ci biir naan waaw lii wala lii di jote ci seen biir wala di xeex wala di xuloo fu ngeen war a xalaatee xeexu xuloo xalaat leen Ousmane ko lii seen doole bu leen ko mësa nangu ku leen ko wàññil seen ànd bi ngeen ànd di waxalante di doxalante nekk famille kenn mënu ko dindi kenn mënu ko dindi fi ngeen jëm nag bu leen yàkkamti bu leen énervé wu ku leen si fekk si ànd leen ak moom ku leen si fekk siwul bàyyi leen ko mu toog dina leen fekk si seen parti bi état d'esprit la sax na ci bopp nit ñi ñaata nit ñoo nekk ay sympathisant Pastef te xamuñu sax fu Pastef nekk ndax lii li leneen Ousmane Sonko wax ñoom dañoo tardé dañoo yéex dañoo fexe ba Ousmane ko sax dugg ci xel yi dugg ci xol yi ba ñépp xam ko dajale ko xale ndaw yi sax dañuy toog dina wax wax Ousmane ko baat bi léegi sax na baat bi fu ne ngeen koy teg discours yi muy def léegi nag ñu bëgg a topp ci ginnaaw di ko def c'est trop tard ndax fekk mënuñu génne sénégalais yi bëgg Ousmane Sonko yëpp ñu génne leen Sénégal wala ñu dàgg seen xol yi génnee ko génne ci Ousmane Sonko mënuñoo suul Pastef mënuñoo suul Ousmane ko xam leen loolu te ngeen jàpp ci loolu te ngeen fanaanoo loolu man tey sama ngor mayu ma woon ma dem tëdd nelaw te waxuma ak yéen waaw parce que dama ni même bu dee benn wala ñaari nit dina ci am ñoo xam ne xëy na dinaa leen remonter le moral voilà donc moo tax ma ne na ngeen wóolu boroom décret bi boroom décret bi wóolu leen ko boroom décret bu mag bi boroom décret bu mag bi ki nga xam ni kenn du effacé bindam waaye ki toog fii parce que dañ laa dugal palais jox la sunu pouvoir amoo loo ñuy fay lu dul di signer ay décret di dissoudre ay parti politique ok Omar euh, Omar Nabien Dia looloo koy fay nag gis nga ku taxaw wax-wax bu ñaaw wala wax-wax bu bon xam nga lu koy faj nga may ko ay reetaan wala nga may ko photo Ousmane Sonko waaw léegi daal képp ku waxati lu bon wala lu ñaaw su ngeen ko bëggee naqaral may leen ko photo Ousmane Sonko ndax foofu la leen Ousmane Sonko toll gis naa ay mag yoo xam dañuy wax bay fattu dañuy wax bay fattu ndax bañ ko wallaay Pape Sarr pare nga ci moroom pexe pexe pexe du mujj fenn yàgg nañu def ay pexe du mujj fenn du mujj fenn tiit ak ragal ak tàppet dong moo leen ci dugal tiit ak ragal ak tàppet kese moo leen ci dugal seen moroomu seen moroomu góor samp parte yor ay idéem fexe ba sénégalais yi bëgg ko fexe ba sénégalais yi topp ko

patriote bi xalaat plan B wala plan C wala plan Z bu leen ko xalaat bu leen ko xalaat ci sen àdduna bu ko nangu restez digne debout résistez jusqu'au bout au fur et à mesure les choses vont venir d'elles-mêmes les élections c'est bientôt yéen ci kii keri yi ngeen nekk yéen a ci koñ yene nek a ci quartier yene a ci deuk yi yene yene majoritaire li ngeen bëgg kep moy am ci réew mi li ngeen bëgg képp mooy am ci réew mi ndànk-ndànk rek ndànk-ndànk rek yii yépp ragal ak fiir ak soxor ak bon kese moo ko waral singali doomu jàmbur ci rek singali ko rek ngi mastaw yaayam bu baax ngi mastaw yaayam bu baax li dafa metti wante nag jaar-jaar la ba jaar-jaar la de jaar-jaar la de Mansour Bousso ñu xool ci Cheikhul Khadim ku xool ci Cheikhul Khadim wallaay kaso du la metti yéen da ngeen foog ni bi ñuy xeex ne Ousmane Sonko day bokk par force dañ doon xalaat ay dina dugg kaso wala du dugg kaso loolu ñun munuñu ci dara parce que lu yàlla nam ma kenn mënu ci dara bu duggee kaso sax nit ñi taxaw xeex xale yi dinañ xeex lu ñu mën mag ñi dinañ xeex lu ñu mën ku nekk di nga xeex li nga mën wante nag dama leen di xamal ne leen kaso du gàcce kaso du gàcce Cheikhul Khadim duggul kaso tëjuñu ko fii ci Diourbel tëjuñu ko fee Ndar yóbbuñ ko ba Gabon déporté ko le combat ne fait que commencer Pape Coly c'est ça qu'il faut comprendre courage à ces femmes des femmes dignes dignes qui nous ont reçus tout à l'heure waxtaan ak ñun ñoom ñooy dalal nit ñi kaso du Nous sommes dañuy am mbégte dugal len fa waye kasso nit da ci génn amna kasso kaso boo ne ne kuñ ci dugal dootoo génn yalla baxna na yàlla bon. bon bon que tout le monde se tienne prêt que tout le monde se tienne mobilisé que tout le monde se tienne mobilisé yalla deug la andal Ousmane ko lii mu nekk te dossier bii ñu ko tax ñu jàpp ko waxaat naa leen ko démb dama koy waxaat tey c'est le dossier de aji saar ba ñu commencé woon moo waral te dossier Adji Sarr bi ci la jógee taxaw fas yéene résister tey ñu ne ko nag appel à résistance boobu appel au au à l'insurrection la te moo ne nag ñoom ña toppee woon dossier boobu ñoom ñoo wëlbatiku dossier boobu ñu tegee ko ne indi corruption à la jeunesse xanaa lolu ridicule na wante aduna yëpp ngi sétane aduna yëpp ngi sétane de Macky Sall bëgg-bëggam la wax rek waye dafa wax nak mom dafa wax waye wax ci balaay jeex borom décret fin bi wàccee ko kooku dong ngay décider kooku dong moy décider té nak je suis convaincu que avec une bonne organisation une bonne synchronisation ah, a ah, c'est une idéologie on ne peut pas enfermer un esprit on peut enfermer un homme son corps mais on ne peut pas enfermer un esprit C'est une idéologie parce que 55 jours une ne fait que l'homme et s'y préparer. Mais il ne faut pas vous apitoyer sur votre sort. Vous l'en joy, vous l'en jambat, vous l'en flancher. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. ndax loolu l'en bëgg bu l'en kanangu. nangu bu ngeen gisee du leen jaaxal sax lijjanti leen ko ci suuf mais bu l'en ko wone dina am nag ñoo xam ne xoolal attaquer seen ay compte sosal len ak waxal les lu bon ak membre fi jappal len sosal len lool japp len ni la rek et puis nous on est là on est là et on est obligé on est obligé de se battre avec Macky Sall jusqu'au bout <laughs> on est obligé Fifi Gaku, du joy kenn du joy, reetaan taxaw yombul nak mais kenn du joy, joy, may may non sagoom la di bu dem ko def waaw wow kenn du joy, dissoudre un parti politique emprisonner une personne yombul de bulen xeb de bulen xeb li ngeen def de bulen xeb sen bop de bulen xeb sen taxaway de Ousmane ah, Ba après nga ñew ci ci inbox ma jox la sama numéro na xel dal de Aïcha gay na sen xel dal lii yëpp ay jaar-jaar la rek ay jall c'est un combat on va on va combattre Macky Sall parce qu'on n'a pas le choix bu ñu suñu Sénégal bi c'est encore le moment de plus se taxawu dresser pour ànd ensemble continuer cette mobilisation pour combattre Macky Sall yow on te met un président ngay changer suñu constitution dindi ay règles léegi ngay des ay nit léegi yemoo ci dissoudre ay parti tout ça parce que amoo candidat xam nga ni candidat boo fi teg dans le premier tour léegi nga koy defaral yoon képp koo xalaat ni da ko mën a téye nga jàpp ko teg ci kaso bi le parti pour ce candidat mën a mais ñun loolu Sénégalais, yi dinañ ko nangu <laughs> yéen tamit élection yi 2024 la nag yéen tamit loolu mënul nek. loolu mënul nek. la dissolution les avocats vont l'attaquer à la cour suprême dites-vous que loolu yéena la rek bu mu bind dañ koy attaquer cour suprême attaque ko ci instance yi nek fi yëpp CEDEAO feneen ak feneen fan nga ko mësa a gisee nga ko fan moom mom réew mi

No, xam nga nak damay wax vraiment yeen euh, patriote yeen ñi bëgg Ousmane Sonko nit soy and ak sa leader da ngay jëmat am taxawayam ay Ousmane Sonko ndax lek na ndax nan na yoy nonu waru len ko sax duggal sen bop Ousmane Sonko est un homme responsable il a décidé de faire de la grève de la faim lolu itam ci kanam nit dinañ ci waxtaan ak mom parce que momul bopam léegi ñun ñepp ñoko bok yeen ay mbokam ay famiyam mais ak ñun ñi tamit ak sénégalais yi te comme lu ñu waxoon Pape rek ku ñu soxla do affaiblir sa bop mais nag comme c'est son choix et sa décision parce que dañ ko tek injustice yu metti waxnako fune ko nako fune na ko ñu kunne diko ko tek teg bi ci muju kon nak loolu la japp ni moy arme bi dañ ko koy accepter il faut pas sa dire ñan ñooy xeex xeex bi bu doon cent personne la yu taxaw di ko xeex sax xeex bi dinañ ci am ndam xeex bi dinañ ci am ndam incha allah bu leen sax tiit loolu wala bu leen ragal loolu voilà Macky Sall nag réew mi la bëgg teg loxoom toog fi bañ a dem bañ a bouger mètre moo tax li muy def nii yëpp mu di ko def Ousmane ko nag mooy ki nga xam ni moom la jàpp ni moo ko mën a xañ lim bëgg moo ko ko mën a xañ looloo waral coono yi mu ko teg nii yëpp ba ci egg ak moom ba ci parti bi wante yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na bu ñu taxawee nag ñun euh, continuer wuñu suñu combat bii ñuy combat suñu combat démocratique et de résistance bii ñuy combat buñ ko continuer wul ah bu yeboo ñu bàyyi président Macky Sall mu tànn ku ko neex mu jël réew mi mu def lu ko neex na def ko monarchie ñu xam ni moom moo ñu ëppale ci réew mi moom moom Sénégal dina metti de mais Ousmane Sonko moo koy yëg du njabootam ñoo koy yëg sénégalais yi ñoo koy yëg sénégalais yi mu bëggoon a xeexal bëgg leen yéene bëgg leen a redressé bëgg dindi fi anti système bi sénégalais yooyu ñoo koy yëg kon nag ñun itam dinañ continuer suñu xeex sensibiliser informer taxaw def suñu route de citoyen mais nak le dernier mot revient au peuple souverain peuple bi nak buñ né ñom li doyna na ñu li seen sen ak sen reer nit ñi di continuer sàcc seen ay ressources naturelles pétrole bi di ñëw ñu guux ko sàcc sen lepp ñom ñu nangu ah ñu xamni tamit kon xëy na loolu la ñu mérité rek les gens vont continuer à vivre guddi na lool maa ngi yemale foofu waxtaan bi diko ko fofu di len xamal ne euh bu ngeen xalaatee ni rek bëgg ngeen ma wax mayna len leen bind len demander mako je viens on parle inshallah dina dinaa xol sax nan lay joxe sama numéro bu ko defee ngeen di woté di dugg ci live bi ni échanger waaw maa ngi len di souhaiter une bonne nuit metti mais dormez. Rechargez les batteries parce que le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Inch'Allah, les gens vont continuer à s'organiser, à se mobiliser, à se battre. Mais le pasteur, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit ne peut pas être éteint. Juste par des histoires de décrets et de quoi que ce soit. Tout d'un. Voilà. Euh, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que le peuple... Euh, euh, Beaucoup de gens, vous pensez qu'ils ils sont mais les gens sont abasourdis, les gens sont choqués. Les gens n'ont jamais vu autant de méchanceté. Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous petite, Mais comme vous dites, nous sommes les filles, nous sommes pas Nous sommes nous sommes, Inch'Allah, nous sommes les prêts. Nous devons. Nous sommes On sera ensemble. Demain est un nouveau jour.

Si vous amee taxawaay rek suba def profil ñepp nañ profil man sax photo pastef photo profil bu Sonko profil photo profil pastef bu photo Ousmane Sonko ñu profil ñu comprendre ni euh, ñun wara le relais le soutien inshallah que le peuple est est avec lui et le peuple est avec nous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et puis, il y a le don de soi pour la patrie. Rien que c'est l'hymne bobu. Quel nous l'énatas Quel nous l'énatas Inch'Allah. Yalla bahna. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit.